الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوشي تي في جسان فيدوبي إيمان وسل الغواني وتزين ذكر الأغاني وارمي بالبيد الحساني وسل مغتوم الزناني والملاهي والمغاني من كران أو مباني كل ذي ويك الصراب وابغ حل المعاني عينها إن حق حاق تاليا سبع المساني بصفات ذات حقان رتبة ليس لساني من بي فهو مختار البرايا قبل تكوين الكيان برزت حضرة طه قبل تكوين المكان وله عمر طويل قبل تخدير إنني قبل البرايا حبه شغل الجنان فهو أكلي وشرابي وهو ديني وجناني إنني قبل البرايا حبه شغل الجنان وشرابي وهو ديني وجناني إنني قبل البرايا حبه سغل الجنان فهو أكلي وشرابي وهو ديني وجناني ليس لي يوم قليل غير ما الكلاني مذقوا جلد جهارا أخرجوني من مكاني دون زلب غير ألي لي حب طه في جناني ليس لي يوم خليل غير ما منك أتاني غير هذا قد قلاني عاذلا لكل آلي مسقوا جلدي جهارا أخرجوني من مكاني دون ذنب غير أن لي هبطاها في جناني رسول إله العالمين تعالى رسول إله العالمين تعالى خضيبك نادى يا رسول تعالى فخيرا إلى غيره إله تعالى خضيم بأقصى الغرب يدعو محمدا وليس يرى خير رسول سمانا مؤمل يا بل كريما وهو جير أصالا تصاب بكريم قد أجاد مقالا فهبوا على مقداري كفيك مصطفى فهبوا على مقداري كفيك مصطفى الرسول تعالى الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله هسيسك جارا مما جما هسيسك هسيسك غاري دندن ويرن يوم Cheikh Mahi Cissé jaaraama maa ngi Mahi Cissé ngaari dundal wéral yow sant yàlla ñun mooy li ñu war ñun bam ñu jagaleele ibnu saydi alliw ñi de dañuy am lu ndaw de di ko ñi de dañuy am lu ndaw de di ko tiitaroom ñun yàlla joxuñu ibnu seydi alliw seydi alliw la nga ji yool de meññi naan moo taxi tey addina ñooy ñi koy góom seydi alliw la nga ji yool de meññi naan Cheikh Cissé mooy roy kaayu ndaw ñi seydi alliw la ji Cheikh Mahi Cissé mooy royukaayu ndaw ñi ku sañoon sa doom ni doomu taawu baay bi jalaalu diin sa baay raw na ku sañoon sa doom mel ni doomu taawu baay bi Ibrahima Cissé ngaari sa baay raw na gaaña ku sañoon sa doom mutaw bay bi jalalu diin sa bay raw na kaña ku sañoon sa doom mel ni doomu taw bay bi jalalu diin sa bay raw na kaña yàlla ak yonentu bi bàyyi nga ñu tegtal ku sañoon sa doom mel ni doomu taawu baay bi jalaalu diin allah mu de xale digal nga ko ne ko jàngal fonkal ma say ñaari waajur dara ganu leen bu de ku ñaar ko ba mu doyal ku roy si maa ngi siise kooku de raw na ku roy si sa doom mel وتاو بايبي جلال الدين سبايرون قايا محمد كبير محمد Mohamed Kébé xadimu cheikh ñu ngi lay gërëm bu baax ñu ngi lay ñaanal yàlla ci li nga defal cheikh baay mi kontaan nañ ci torop yàlla na yàlla fay la ñi jox Seyda Aïda ci faydu kii rek ak ak ak kuy murit na ma ñëw way la Seydi Barhama kuy murit na ma ñëw way la Seydi sopp barxam te jox maw xaatir maa mu may ma soxo te baawaan am xel maa mu may ma soxo kon danaa mën a way lii fi gën ci soona ci xut boy roxo yi naan si fii di waana déglu leen ba ma delloo ci kan ci gën di ca azal la ko buur ji talanduul fi fara feeso nga ñi la doon xaar ba seeni na feeso wala may alalam moom lay jaay ci lislaam pour si ñeel mu weer jox ko kan mu fay doon su ngeen xamoon ay may saa nekk ngeen dee bañ a linkaar bañ a dinga te ngeen saxoo fa benn te du lu xar baax bay gis bi nga wàcce ñu xam ne yaa baax masula jóg kër baayam teral ci lislaam benn sëriñ manu fi wax ne dem na daaraam bu kañaan amul woon loolu moo de loolu doy na xarbaax xam yore ne te daa dajal basuura te raw na kuy maasama na xar yewey daa xam yore arabu kaaf la sapp daara da joor ay masala boole ko maqaama ceram nga neel yi nga lamboo newul ci ay moom yaay xutbu yaay xawsu yaay saydi rijaal tuutiwul rayuleen dawar ñoos jambi rasuulu la yar ñoon yoon ba may moon bu bët yay na la wiir xol ba moom ma ngay xool teeru ga arasa kursi yoo ci lay deel ta buy ree day muñ ar anam ba di weer kar kar te waareem gën a neex leen soxol ya mi waa balaa nga koy xool boo xoolee marxuum ñas gis ko muy mooña mooy jikkoom ja mu doon ne fa say di adna dogal gu rëy ga la doy loo mooy kun fa yakun xaale wala xaddina ak lii ci biir dafay biir xëy doon loo mooy yàlla ak nabi daal masalaam ku moyen ci alal ba ne sooy te am koom du ko bég loo xamul ku muy baay di doy na ko jéem. jamaa du ragal yàlla. tamit ci lislaam. te toolam ba du boy. moo di yoonu jàkka. itteem ko moo gën a xir kay ne boo yëgee buur. karaama yaa gën a rëy. tuuti ko fii door. ay batam dafa boor mel ni jaali sama. ndax batam gën a xir ci fakkiir miskin. su kuule nga suñu rooyee. soo ko ca zulma. bu bal jën si nangaana salima kooku ko tay bi bankool asamaan war na jubbay jàggam te topp say waan rabbul jalila ko bal joko man tarabaan wal ko muy bali doomam si war na la baale wal daka ko madam moom la oom wala oom waaw am ilaahi naasoo yore suñu xoojo si yaare Madina bañ demee ba fa pompa mu def fa joraana ca mam jee tasaruf kol ya bañ jaram baay ma met la yore kii ku janoo bay soppu ko ndax fa yor leera wala xoojo suñu maam daan na wax رسول إله مطاع بايسا وتسليما هنيان كويفا تدانا ولا ويسا بقوت جئو في كرسي جبدان وإمام إبا فبرقت مسوي ويدهم في وجا لولي مثل متم تود جلب دمسان Ai, barama! Ai, barama. lu dootul yee bëggeel gi dootul dañ dootul dañ bëggeel gi dootul dañ dootul dañ baayoo jaayoo bëggeel gi dootul gi dootul baayoo bëgg nañu la bëgg nañu la bëgg nañu la ay baay bëgg nañu la wallaay nañu la لا لا لا لا وجود الغيبة وجمالا وأبصرت من ساعة بهجة وجمالا جمالك أنزل هيبة ومحبة فأنت أدام مرسلين كمالا وكل هذا مكارمه الأولى وما دائما هاشمي تشاء مصيبتي أبات إلى ما يفوت مقالا وأنت وأبت البينا وزون فتحا إليك كوني لدى اليوم الرحيم نوالا وتيمني حبك صرت مجمجما على البر والأجواء أروم وسالا فقادت أوداني وأهلي وأسرتي أجوب البلاء لم أشكو قد كلالا بلاد wallaahi baay bëgg nañu la bëgg nañu la bëgg nañu la bëgg nañu la bëgg nañu la bëgg nañu la bëgg nañu la baay bëgg nañu la billaahi baay bëgg nañu la bi Kawlax dawran aw bi Yoffin wa maratan bi Paris sadar asiqiina kusaamala ببرجيك يوما ثم يوما تجولا بقائلة هناك جمالا لعبد الملك القرم قد جئت موعدا وما لندن أبي فحما خيالا ببيروت أنو سينا بالشرق قادما رسول إلهي أرشي وتعالى كراشي بحب العبد أهل مودتي أم نصر نبي في حالة قد اعتصموا بحبل حبل محمد كبارا وأطفالا نساء ورجالا bëgg nañu la bëgg nañu la bëgg nañu la bëgg nañu la bëgg nañu la di daaril ulum diine فقد شيدت ميتا يفوق مقالا لمركز إنعام إلهي تشوقي فقد شاد ميتا إذا أتاح مجالا بلا حورة بلا عدل القديم إمرتنا مصيري إلى المولى وجل قديم هو للقل أسفل وهو أتى بفارق صبر قد متطفلا فآقر رجاء رحاك مناك ففي كل عين كل عين قد تبت بنعمة بنعمة إلى كل عين قد بذلت منالا على وتر بحار البحر علوت القرى والبن بل الجبال علو مريد الباري لنصرة دينه وأبرز للجيل الجديد مشالا بين ضعيف حليل شائب مقام سنة لينصر ديننا لا يريد قتالا تقذفه أجواء الشرق المغرب يبين الهدى في الهدى وقالا وحالا بكنت جنب القوم سالم توسل بقائد جيوش وسعد رماهم بحمر الحاشم وإن عزيز وقفاف يرجعون سقالا لبيكنا من كانتونا بالسيننا وقول خطبهم امسك باسيالي نبي متابعا مذاهبه والمنتشات فلا فتحنيك عن دستوري كنز وقالب وتحنيك عن جون يروم مؤالا وما نبليون أولانين ومركز نوحا إليهم قلبي أنت قبالا كتاب من الله قديم وباقٍ لا يخاف زوالها باين كتاب من الله جليل جلاله قديم وباقٍ لا يخاف زوالها باين طلع الفتى المحمود جهرا ويحرا ودع بعد هذا كل قيل وقال من القلب زال وزال ويحلو لواء الهاشمي وإنه أذاق الجموع المقتدين وبالا ويحلو لواء الهاشمي وإنه سواك منالي ما قبلت نوالا عليك صلاة الله ثم صلاة أجرني وأثابي أراك شرالا عليك صلاة الله ثم صلاة وتشمل أصحاب نبي وآلا بلا والله ما بكنا بكنا بكنا bëgg nañu la bëgg nañu la bilaay baay bëgg nañu la Allah Allah Allah illa Allah Allah Allah illa illa Allah Allah Allah la ilaha illa Allah Allah Allah yaa di baabul kan sa laxam sunu bar am Ibou Diouf ne Ibou Diouf ne man ma xosoo bi ixbirli sadax tabaraan yaa di baabul kan sa laxam baay bar am baraama baraama baraama baraama baay baay baay baay baay baay baay baraama من معول صعم بإخبر لي صدقت منام يا دي بابل تنسل أصل باي برم بوجفنا دلن دفت جرد باي بوكاري لبلن تي يالا خاطر لن تي ملو يدن سدي برام bu juf ne bu juf ne bu juf ne gaañe demoon xadaratil qudsi dootuñ fàtte yàlla bu ñuy gerso jano gi yónnen sëriñ bara amma bu ne xadaratil qudsi ku fa dem ku fa dem xam ne yàlla mooy buur dootoo janoog bi def maayam baay bara am bara am baay bara am yàlla ba muy amal xaalam gi xaalam gi xalimam ngay baay bàyyi leen bindee lawil ma xoos bàyyi barahama ibrahima juf dëggal naa loolu ñeme naa koy waat kuma weddi ñi dool ci kaamil sini baax wax ju dowul waxu xaqiqa gënul ci majjub dellu leen ci yàlla gëm leen sëribanam baram lim ñu xamal jombe nay wax lu dowul باي باي باي باي باي برام برام لم نقمان جمنا وخلو دول يلا قولوا قولوا لا إله إلا سيدي برام يروي سكول كما تشيدانو ngeleman le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 yera sawiyet yera sawiyet yera sawiyet sama de o tijani ninki jani ninki wo mana wo mana dafna mayre bay barama fode yinan yalla di ko gis kina jangulen jangulen jangulen qaba qaba qawsayni gaji wedi bara wedi bara wedi bara Ibou yàlla fa muy denc ay bootam ay bootam ay bootam Ibou Diouf ne Ibou Diouf ne yàlla fa muy denc ay bootam mi def dul ko foog dul ko foog fañ koy foog du denc foogu sidi barahama barahama barahama barahama yàlla xarañ ku mën a yidu moo bett soo daan soo daan fañ ko fogoon dawul foofu man ca barahama kaka bu waqaf bi Ibra Faal Ibra Faal Ibra Faal Xaliilu doy nga ji ca manaw la la sunu barama pak bu raasana ko jal mu tag weliin Ibra Faal ragal boromam sunu barama man de sopp naa la ngir yàlla Ibrahima Faal jàmb ragal borom laañe mo ne ba bu bu juf na ko maa ngi lay gërëm lay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 mbindeef musu koy gis dun bi xaw nay riim a riim a riim am ca maawu tuufaan suñu faam suñu na ko ibu na ko yal na yàlla bégal say yàlla ci mbootu yàlla yàlla jokk yàlla jokk këba baraam doxom atam doxom atam mbindeef koy gis dun bi xaw nay riim a riim a riim dañ nay al jamaa tuuban siriban géej gu ma geeroonu alam gi gandax ga cey dóor tuti kon mu ballu soodaan sudi barahama barahama barahama barahama baay baay baay baay baay baay baay barahama géej gu ma geeroonu alam gi gëndax ka cay dóor tuuti kon mu kula soodaan suñu baram gëndax gi daw na ci biir suuf si ji ne kilomètre tuuti kon mu ball soodaan suñu baram bu bu yàlla era sutoon barama kon suñ dun bi niil gaañi weddi lab ci waylun suñu baram mu ne bu duwuloon saatu saasi ji mi def yaa nga xaybu ruula sambi doomaas ci bara amaay bu saatu saasi ji def yaa nga xaybu ruula sambi doomaas ci di bara amaay maa saatu ba fay nekk kuy sam dëkkandoor teg bëccëg doy na kéemaan sa dibaar amaan xalaamu laa laabi yaay lamp mul koog malakoot bindoon duñ faase si di baram dayratul fadli ku ca nome war ngay sant yàlla ñu lañ tigil kan sa law sa sunu baram xayma xayma sëlër ba ca biiram caabi jaada bàyyi yaa ñu tigil kan sa law sa sunu baram yàlla mi xam xaybu xaybu bu ñu tijiloon tijiloon benn printer sa xaybu ni kon gaañi ràññe suñ baay sunu barama barama barama fase leen àddina bëgg yàlla bañ a réeroog baay sa ko di selma rabbi mooy su di baayam yàlla daj bàkk lislaam bi jëbal ko baraam tijji na bi leen yi jëbal baraam yàlla mi daan yónnee moom yónneetul jëmam jee fi teew surul àq ñëw na soodaan soodaan bay baram bay fokk leen fokk leen seen mbokku aarifi ñooy seen doomi baay doomi baay jëfe sariyatu moo neex tu moo sunu baram baay baram lab leen ci pays bi pays bi bàyyi bokkaale bàyyi bu gur loolu gur loolu bokkaale day da rek may sëf lan ka waame dox di yi sànk nañ gaañi weddi baram la ka dalee ci maam بجا بلاي ستل لفي مسيب سبل سن برهما برهما برهما برهما باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي برهما لك دليتي مام آدم آدم بجا بلاي بلاي لفي مسيب سبل سن برهما yàlla yónni kamu daan yónni kookoo leen di waar kulul xaqi ñëw na soodaan si di yàlla yónni kamu daan yónni kooku leen di waar kulul làq ñëw na soodaan suñu baraham may ki daan garde suuf seeg asamaan si am leen ci moom tekkil maxjoob yi xam pexem noon moom mooy baraham garab gi woy naa gor la famille tim na dunya simbaañu guy gu rëy kokoy sëni baama suma nampoon arab mama sañ leen wax tey li baay doon suuf si tàppook asamaan si si di baram jëmmam ja paase na jëmmi xut bu wax ñu ko doon ñu ko doon Seexu Tijaan idoo suñu baram baram na wax ñu ko doon ba gëlëm say naa ni suukar ci biir meew ci biir meew Ibrahima Diouf Ibrahima Diouf tagal ma sa baay seli ba max joob yi dof ko fayee daay fayee ma de baaraam la baatab kun bu jibee bu jibee ku ko weddi ku weddi iblis nga yaakaar nga yaakaar ëllu jahannama ñoo bañ ñoo bañ si di ba yàllay deyoog sëy di baraam ca mul ko malakoon malakoon ku ko fekkee wutoon bul weddee ti baraama ba tam bu jekk ba bu ko xoolee ca kaw asamaan mul ko malakoon la ca biir war na baraama binam wa day dàq saytaane te diroo Ibrahima Diouf tagal masa baay sëñ baay nemmi lemam tabaw yaa ànd macho bi muñ leen jibril taxal na kër baraham allar bay gàddaay ga ba ñu merloo baram abdalaay jinne ngenaw naawe fowee lu ku nekk yor xer booleel ngalanda na ndaw ba silimaram jëmmi pey bee ngenaan baram muñ lool say doom ku ñeme yambooy lekk lëb yen su di baram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 برها أنت باب الله نمرجل فن سودان سودان مدبام سنجبور سنجبور جينا سانغ بالمان بي إني إنجلمان أغلو سندخ جلن ألكو ألكو سودي برام سودي برام برايا بي سانغو بالمان بي بالمان بي إني إنجلمان إنجلمان كل ريري لبجي ويلول ويلول siriba hanga dambi hutak del simbe jaxal be jaxal fodayi sodan mulgo magge tamba ngay bat siriba ham ham dambi hutak hutak del simbe jaxal fodayi sodan mulgo magge mulgo tamba ngamal siriba la ilaha illallah la ilaha illallah لا لا إلا الله لا لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله صلى الله على ما دام ما دام صلى الله على ما دام ما دام أنا فرق الكمال سبيل الله مرام أنا جمال فن صفي الله مراما لا أنت العز من كل مغوف القوم مراما الأرقام زلامة والأهوال برامة يلي الجن في فيز غليظ القلب برامة قصوع بسجاياك يا ذو القلق برامة علم القلق عطاك إمام الكون برامة لقرعوتك كن فيكون فديل الله برامة لقرعوتي تكن فيكون فديل الله من بيع بالعقبة وابوه وناجر كل براما عن الكو كل جنوك سوى ساليك براما عن الكو كل جنوك سوى ساليك براما وهو جميل جابل الكسر لمن وافاك براما باي جميل جابل الكسر لمن وافاك براما وهو الأولياء كلنا بهذا الوقت مرام وهو إمام الأولياء كلنا بهذا الوقت مرام وهو بروس الحق وتحقيقه إيوه والإرفان مرام ولا بروس الحق وتحقيقه إيوه والإرفان مرام من باي رميت القزر لديني لآل قزر مرام باي رميت القزر لديني لآل قزر مرام باي أقصت القلب ويل البايد أقصت القلب من لآل القلب ويل البايد أقصت القلب من لآل القلب ويل البايد أقصت القلب من لآل القلب وهو يا والقلب فيها تنسوا الله أكبر من بيع القلب فيها تنسوا الله أكبر وهو يجيب في جبارتي أنا الملكوت مرام والذي يهيم في جبارتي أنا الملكوت مرام موت الكون بناسوتي بسر الله مرام وهو موت الكون بناسوتي بسر الله مرام مماي موت الكون بناسوتي بسر الله مرام وإلى الباي موت الكون بناسوتي بسر الله مرام وهو أسر سر لسر الله لآل سر مرام والله أضر سر لسر لآل سر مرام بايبانا أصر لسر لآل سر مرام بايبانا أضر سر لسر لآل سر مرام بايبك نيلا أصر سر لسر لآل سر مرام وصلى الله معنا صفاتي صوت باي برعامة برعامة باي برعامة باي برغمة برعامة باي برعامة باي برغمة برعامة وخللنا برعامة باي برغمة برعامة وخللنا برعامة باي برغمة barahama bay barahama bay barahama jar na waay ba tey bay barahama jar na waay ba tey bay barahama dañ koy waay ba tey bay barahama jar na waay ba tey bay barahama jar na waay ba tey bay barahama jar na waay ba tey Bye.

allah allah bakkalel ko allah allah bakkalel ko allah allah tuddi yàlla allah allah bakkalel ko allah allah bakkalel ko allah allah bakkalel ko allah allah barama allah allah soy samp sampal baay barama allah baay soy wolo wolo baay barama allah baay soy ànd ànd baay barama allah baay Allah bay baram mam bay baram Allah bay baram mam bay baram Allah bay baram mam bay baram Allah bay baklen ko Allah Allah baklen ko Allah Allah moy khutbu Allah Allah moy khutbu Allah Allah moy yenen bi baay mooy Seexu Tijaan baay mooy xutbu Allah Allah sooy bëgg bëggal baay bara Allah baay sooy wóolu wóolul baay bara Allah baay sooy ànd ànd ak baay bara Allah baay sooy bëgg bëggal baay bara Allah baay sooy bëgg bëggal baay bara Allah baay sooy wóolu wóolul baay bara إلا لا روح الوجود بيس جاقل إبراهيم جوف كان سنيك وسلمان jàppal ni bàyyey mbambulaan waaw waaw waaw sirul ak ñëw na soodaan si di warama amul kitaab mbër mi ko doon tëril ba say maam barama yaay roo la fan si di barama yi baa leen di wisit ndax lam ngeen ci si di baram li ngeen joote na dëgg la mbaay barama awlu soodaan soodaan ragal leen yàlla tey ban leen di fit di fit ku xamul fit gi lab ci wayun sëri barama ku fit gi jàpp bekk la ci weddi la xaw la ma ne mooma mi deeb këram wayun mbaay barama jàng way jay borom muy funki ni band buñ dóor woowu jàng noonu la gëm leen sëri barama déggut lam jànga dama yërëm am tax du dégloo jàngi leen fa baay barama wax joo sosul jar na yëngoo loo di rek ni ngookaan gàcce la cay dëkk gëm leen bàyyi ba ma ay nu lu ulum ba muy wañ màkka mu ngay dénk doom ya sa xool leen roy ci yéen bàyyi barama ma ngay dénkaan bàttale waa kër gaa nga teew bisab kërëg doy na kéemaan si ma ba baram pare tàggu waa kër ga ba war ci tiijaan tijaan dal di donnu guraas sidi barama ndongo yaa ngay noddu malaaka yay sikar tanaan baay dañ lay gunge ñun ba makka sidi barama ba baram bare a xool ba barama ba samsu sumos jubee kër baayam baa ngay riir mama jiyes teew nga ñaanal bay barama samp su moos ju bee kër bay ba xabru ba ngay réer mama jiyes teew na ñaanal bay barama marsa kawlax ba fa bayay jaar nit ñi jéggi jaay ma marsa tëj ñu uti gaar ba jëm ca barama ci ci ja keroog damay sama daay keroog yow ma yu baasuna bay barama chef de gare ba jug na la xasaayu tanaan pare leen grand marabout bi bonjour suñu barama asam su sumos di rentré ci terrain ba daw lu neex a xool ba sa keroog doy na kéemaan bay barama Sandra مسنن Dusma, Marcelan اناريال مايلن كيون Koyon, Nahmoy جنوب سيدي Baramba. بحر العالمين دوم يا دينا وار وقت وقت ما نفال باي برما لا إله إلا الله محمد رسول الله مملن دوم يا تري بداو قاچو سبل سيدي برما فتري بدو Madina sikar sabawaan keroog xol yi dem nañ Makka baay barama téléphone ba boo ne kawla daldi tudd baat ba sone sa kër gouverneur ba sunu ba nga naan pare leen waa Ndakaaru baay ñëw na gouverneur bi tey nga gouverneur ba tey am gan moo de barama gouverneur ba daal di téléphoné fi gendarmerie pare leen dem gaar ba teeru baay barama colonel ba wol soufflé ba gendarme ya buur pare dem ca gaar ba tetu barama baay di wàcc garak Ndakaaru damay sama ndaay keroog yow ma yëwaan suuna sudi baama tubaab yaa nga ràcc këri kaw ya sandar ma garde Ndakaaru jël jóg jëf war naa baay baraama metti William punti Ndakaaru bu fa bàyyee jaar loolay adaaratil jamo sudi baama baay di rentré ci kër Alaaji Omar Kan dawlu neex a xool keroog yor na meroo ay barama babaay ji jugee kër alaaji omar kan ndakaaru da fekki gouverneur keroog no melaw jibril su di baama babaay di jugee kër omar kan di jëm ca gouverneur keroog yow no melaw jibril ay barama baay di rentré sa saboor ba da fekk gouverneur bisab keroog doy na kéemaan su di baam gouverneur ba ko naan karamara bu loo soxla loo soxla nguur gi faj ko baay barama barama ko naan tawatuma dara lay yëgal man yàlla xebal na ma màkka di baam sër ba saafin nee na mu ngi ci ndox ba Canada di ko te si mini ba noddu capitaine ba naan nuyul leen ma baay Barama inar ja baay duggee Ndakaaru ndax lu nekk xol keroog mbolam xol yi liw nañ sëriñ Barama akol ba nga naan alhamdu ñoo ngi sant yàlla yal nañ bokk ci say mbokk baay Barama ko bay ba nga naan paylel bi tiral yoon bi gaaw te sëñ gaal gi am na kan tay moo de Barama ko bay ba nga naan ñaanal bu ñu lab ci géeji golf baay barama géeji golf aarif ci la tëll soxol say ba jeex yënga géej ga doy na kéemal baay di Canada di soobu ci biir golf karaama ya fee nasaraat ya keroog ibne keroog baay di soobu dafa tiit keroog ba soppeeku ba mel ni perkaal fardul jaam moo bi domaas baay barama mbër mu toll ni kol fukk ko tàggat gisuma lu lay galal diggante fekk wàccee sa sidi barama keroog kol fu leer na leeraay boo xam ne du leer masu fi am kana ko moom baay barama hajam atam hajam atam ndawlu tumuranke musa am sodan géej nay am ca fadu makka sëri barama aaru ila safa wa kër bañ daje kaay keroog dañ ne ko nagi ñëw na baay barama xaara ila safa ak marwa ba ñu Sénégal keroog dañ ne ko ñëw na mu ne barama borom basiray xam nañ ne la meñ du la laal jotur nañ ne yaa di min ka baay barama mbokk pour say mbokk ca ana waa baraada ale rasim gëm na yonal sëri baraada ay no en sëri ca makka bokki medina ya bañ la gisee gaaw na si nooy ay baraada ay baraada en sëri ca makka bokki medina ya bañ la seele gaaw na ñooy nooy bay baraama darul xuta fi na soda sëri baraama فلا فك سقف يبجل مما يخبل قبل فير الجنة سلام سري برهم مرق لا يبقي أني مدي سيدي برهم نور الهدى فين سلام سري برهم سوانغان غاك سقف يبجل مما يخبل قبل فير فين سلام سري برهم مرق لا يبقي أني مدي سيدي برهم نور الهدى فين سلام سري برهم سيخم من الجنة بيبك وهبوتك وقيبوه wàcc sa daan Seydi Bara Aman barzaqu la yabqiyaani moo de Seydi Bara loolu Ibou Diouf fan ko naan bay seexu wax ma bas ba gaar ga mi ko set ndax ma présenté wu gaar ba Sidi Bara bartaqu la yabqiyaani moom di Sidi Bara noonu ko dafe no sona Sidi Bara seexoom ko naan ker bu sufle nit ñi ba bondoor ma ne bari a teew fa gaar ba Sidi Bara bartaqu la yabqiyaani moom di Sidi Bara noonu ko dafe no sona Sidi Bara booba laa fa boo dem soo konde xar nooru din maa ngi tàcc bàgg booyam sidi ba amma bartaqu laa yabqiyaani moo di seydi barham noorul huda fenna soodan sidi ba amma ba ma bëbandoon ba nga al huda fi na sonaan si di barama xaman ngeen la cër bu jant fenkee ñeseen dana leer mama ji ñes mën na yéeneel si di barama bartaqu laay al qiyaani moo de say di baram gi bal nga jël wu mag yaa ñu تردج يا سيدي برام برزق لا يبقياني مولى سيدي برام نور الهدى فينا صدى سيدي برام نل الكرم حاج عبد الله رضي الله عنه وجل يوسف كامل سيدي برام برزق لا يبقياني مولى سيدي برام نور الهدى فينا صدى سيدي برام نقبل جردنه جد متقي مكاني سكر لين جميع عارف برم داي فور سيدي برام برزق لا يبقياني القيان مول سيدي برام لورو دا بين صدان سيدي برام جل جل قطاري بلاي كد سيدي برحم ديك الهند مولانا سيدي برام برثق الله يبقيان مول سيدي برام لورو دا بين صدان سيدي برام كلا يرم تقل لا تولم توب كاي وبعد لا تنتي سيدي برام برثق الله يبقيان مول سيدي برام لورو دا بين صدان سيدي برام lakk leen yal ma ñet mi ci tool bi te dolli ko lem borom tool bi jarama yel sidi baram arzaqullaa yabqiyaani moo de sidi baram loolu daa feeñ ma soda sidi baram hewleel bat sanna baral seeni nelaw sodar warta tarda six heures sidi baram arzaqullaa yabqiyaani moo de sidi baram loolu daa feeñ ma soda sidi baram soldaar bu ci ji yëg ndigalal buur leen nga dem ci mbaam yàlla yàlla خني جيوب سيدي برام الخلق لا يقيان هدى سيدي برام نور الهدى فين سودان سيدي برام جامبوي جامبوي يلا بموكو بوبو جملاي تفسير عمر كتام مقل سيدي برام الخلق لا يقيان هدى سيدي برام نور الهدى فين سودان سيدي برام تفسير عمر كتام ينا لهم غيوم بالباي يوم يبو على غرمن سيدي برام الخلق لا يقيان هدى سيدي برام الإسلام نور الهدى فإن صدى سليمان تسرى مر كتب جين جاول كسوسي كوسي قد نمبر سيدي برام من قل آية قيامي يعني، قد سيدي برام نور الهدى فإن صدى سليمان تسرى مر كتب ريم الله وبا يا رب غيلينا سيدي برام من قل آية قيامي يعني، قد سيدي برام نور الهدى فإن صدى سيدي جمبار الجهاد فيو bari bari jam jam ba mu teel faddu permanent a sidi barahama arzaqu la yaqiyani mawla sidi baraham nurul huda fayna sodat sidi barahama tafsir a kutam bitayel kamal kami faddu tijil lay ko ilayna sidi sidi baraham nurul huda telefon jannatul ilayna malik ود سيد برام نور الهدى بين صلاة سلام مالك لنا الجبريل لا جلم برام كركو فرق ارو موي نيو سيد برام ارض قلا يبقيان ود سيد برام نور الهدى بين صلاة سيد برام جبريل لا نان برام من لا بيبي يون لا تشغان كي ارو موي نيو سيد برام ارض قلا يبقيان ود سيد برام نور الهدى بين صلاة سيدي مرحبا مرحبا كنال القميص وقت عمر وجيلينا سيدي مرحبا بردن قل لايق يا مول سيدي مرحبا نور الهدى فيك صلاة سيدي مرحبا مرحبا كنال القميص وقت عمر وجيلينا سيدي مرحبا بردن قل لايق يا مول سيدي مرحبا نور الهدى فيك صلاة سيدي مرحبا مسيا قوي بك جبهي بك كرر نيبار مغير سيدك إلينا سيدي برام مرزق الله قيادي مولي سيدي برام نور الهدى في النصر سيدي برام مالك أنا جبريل دجل الوابي بهلينا تنيو أمغان سيدي برام مرزق الله قيادي مولي سيدي برام نور الهدى في النصر سيدي برام مالك دادي تلفون جنة الفردوس علينا تنيو أمغان سيدي برام مرزق الله قيادي مولي سيد برهم نور الهدى بين صدى سيد برهم جنة الفردوس تنفل جنة المآوي لينة يؤمن سيد برهم برزق لا يبقياني مود سيد برهم نور الهدى بين صدى سيد برهم فاطمة تنغنا الجبر جبرلين جاغن وال سيخو عمر من ولايتر سيد برهم برزق لا يبقياني مود سيد برهم نور الهدى بين صدى سيد برهم yonent nga naan jibril toppal booru géej gi ndax nga teenu ba ba buy ñëw sini baraxam bardaqu laa yabqiyaani moo de seydi baraham doorul huda fay ba timeeli yil janaw lamp bak ba muy ñëw sini baraxam bardaqu huda fay soda sini baraham jibril a naan waa bébé daw rang ca keeba seenaa bak ba muy ñëw سيدي بام أرفق لا يبقيان نور سيدي برام نور الهدى فين صدى سيدي بام بكنكم بكن تك فردوس جبريل لكاولين بك بنتون سنت نيونا سيدي برخم أرفق لا يبقيان نور سيدي برام نور الهدى فين صدى سيدي برام téeméeri du sene automobile la ñu tourné ndo moom lañ garé ndo ca Kébémer sëriñ Barhama. Barzakh la yabqiyaani. Maodo Seydi Barhama. imam darul huda fayna soda silimam babba sobo ndol lankari kostaheliyin capitaine ba wacce rasba sinin barakham barzaqul laye qiyadi hode soydi baram darul huda fayna soda silimam jibi ali ya nga naan busri tagal borom pebi wax ñi li nga xam ci yonel silimam barzaqul laye qiyadi hode soydi baram darul huda fayna soda silimam ali ya nga naan busru yu tagal borom pey bi wax ñu li nga xam ci yoonam sidi barama barzaqu laa yabqiyaani moo de sidi baram nurul huda fi nasalan sidi barama bu busru yu tagee suñu yoonam bi ngangoon ay ga jaay saaba ya daanu nañ leer sidi barama barzaqu laa yabqiyaani moo de sidi baram nurul huda fi nasalan sidi barama bu busru yu tagee suñu yoonam ba gangu nay ka jaayu saaba ya daanu lañ leeru sidi baraxam barsaku laa yaqiyaani moo di sidi baraxam dërëb sidi baraxam yennan tanga naan jibriilu dugal bokk ci gaal gi yéen ñu seexu omar bañ dem sidi baraxam barsaku laa yaqiyaani moo di sidi baraxam dërëb hëdaa feeñ na sodaa sidi sidi baraxam وارزق لا يقياني مود سيدي برام نور الهدى فيك سودان سيدي مرام ينتغنان جبريل تجل نامبي ليري سيري شيخ عمر بمنان سيدي برام وارزق لا يقياني مود سيدي برام نور الهدى فيك سودان سيدي مرام جبريل جانغانان فاتو بنتو تاكل ني سباي ما ني permis ndax ñu sargal doomi baram برزق الله يبقياني هون سيدي مرام نور الهدى فين صدام سيدي مرام جبر جانال البابا نجول مكة جبر جبريون من الفرين دقن سرقل دومي مرام برزق الله يبقياني هون سيدي مرام نور الهدى فين صدام سيدي مرام فاتو نال بابا نجول مكة جبر جبريون من الفرين دقن سرقل دومي مرام برزق الله يبقياني هون سيدي مرام نور الهدى yónnante nga leen may naa leen te ak mi di del ci tatagal leen Omar soppeem Sidi Baram barnaqul laa na ragal bur yàlla kon seen xay am ngeen chef de garde ca Keba Sidi Baram saxaar bu dee lonku ay bëggoon beneen gaara tàggoor góor la leen teew ca garba Sidi Baram برزق لا يبقي عليه مود سيد برهم نور الهدى فإن صلاة سيد برهم فقوم وصلت بدف سلت بيم مرسلي تجكي قلق الجقر بسلي برهم برزق لا يبقي عليه مود سيد برهم نور الهدى فإن صلاة سيد برهم وقوم وقومات بدف سلت بيم مرسلي تجكي قلق الفقر بسلي برهم برزق لا يبقي عليه مود سيد برهم نور الهدى rafet na soxna si baram wowo bogo moo de macco bu soppeeku fasex jëmi macco xol ba fasex si di baram bardaqullahi qiyaani moo de seydi barham dorul huda fay na soxna si di baram atam huday diye kila doon aaya bir kaaba ga ñan ko ceene saf ko ay ga nooni baram bardaqullahi qiyaani moo de seydi barham dorul huda fay na soxna si di baram suma aman paasa abiyo ban ma tàggu baay ban ma dem ba laskandare sidi baram barfaq la yam xiyaali moo de sidi baram noonu huda feñ na soda sidi baram bu ma àggee laskandare ban ma dem mambulan ban ma seeti fondo mamba sidi baram barfaq la yam xiyaali moo de sidi baram noonu huda feñ na soda sidi baram bon dina siyaara ji xabru baram am si yaba bu seyr yo sopp yu nun sidi baram غرق الله يبقي ولسيد برام نور الهدى في السودان سيدي برام بصري وباخ lam daan tegtal la ci yónnam di melam yaa ngi feeñ ci min kala sidi baraham bardaku laayam yaadini moo di sidi baraham nurul huda feeñ baraham géeji waykat yi yaay jëmmi xaatir bu seyri yoo baax ci moom lañ baraham nasara sidi barama géeji waykat yi yaay jëmme xaatir bu seyru yoo baax moom lañ rayee taggu yónnal sidi barama barna qul laa yaqiyaani wadi seydi barama doro huda fin soda Sidi Barama bu ma fekkee woon jamono jooju ma tàggoog moom ku ko miinoo sopp yónn bàyyi Barama barzaqullah ya xiyaani moo di Sidi Barama noorul huda feñ na soda Sidi Barama barzaqullah ya xiyaani moo di Sidi Barama noorul huda feñ na soda Sidi Barama barzaqullah ya xiyaani moo di Sidi Barama noorul huda feñ na soda Sidi Barama ñasalay way mara xaw su di najta bay nooru ñasalay way mara xaw su di najta bay nooru ñasalay way mara xaw su di najta bay nooru ñasalay way mara xaw su di najta tamane bay nooru lay bëgg way moo ne bar mi di najfa bay nooru ñasalay way mara xaw su di najta bay nooru lay bëgg way moo ne bar mi diine ci seen baay door ña salaay way moo de xaw su diine ci kay géew bi yaa la làmb ji rëy tey ku yoru sabar da ko jël baay door ña salaay way moo de xaw su diine dama ne géew bi yaa la làmb ji rëy tey ku yoru sabar da ko jël baay door ña salaay way moo de xaw su diine ci kay géew bi yaa la làmb ji rëy bari na wuy duñ barakay jëm yaa na lamb jërëm bari na wuy duñ bara tey ay na ñas ay way wala xawas di sama mbar lo bana ci ñu ñu ne ku kan na la koko di kan koko kan ila di kan kana bay mo le mi di la ay ay moo de xaw si diina ji tey moo di kan kana bay ña moo de mbër mi diina ji fay way daaru ña salaay way moo de xaw si diina ji tey su xamut la ko la ba do taxaw da ngay wër way daaru ña salaay way moo de xaw si diina ji tey bu xamut la ko la ba do taxaw da ngay wër way daaru ña salaay way ودخو سدين جتاي بسم الله بي بكتا ويكرو سدين جتاي تاج العارفين بيس لو مرد ميكلا بالباي نسلاي ودخو سدين تاج العارفين بيس لو مرد ميكلا فل نور نسلاي ودخو سدين جتاي لو مرد كلنا دكور سيكرن تمدي salaay way ma da xawsu di tëbëleel sasu rek karab xalifa dalla cay rakab na ko héegal sa kaaba yàlla ja ñaan naa wuru say baaya ma doy ku doyul lay lay say ka wax na baaya ma doy ku doyul المرشدين الدجيل سخي أخمد أيكل فل جمنا دويكل كل ما سقي أحمد أي كلفل جمنا دوي كل ما يبايل waaw soo ñëwee dajaa ko ci baay muy àddi si bi téere bi wax way way ma de xaw sëgg ba mu tey soo ñëwee mu dolli la sawqu nga dellu sàkku ji ñibu su dëggee mu def la ragal riki bol gu nekk ca yow kasta wàlle jub ne la dellul te jaamu yàlla bu wér lépp loo defoon ci la ñaaw awra rabbi farala ko tey bàyyi loolu ña sa naay way wala xaw su diina la tey lépp loo defoon ci lu ñaaw lawra rabbi farala ko tey bàyyi الغيب ودقوا سبيل أي جف الذين من نبغون مدلق لا إله إلا الله لا إله إلا الله وكل شيء yéen yéen ñi ànd ak yéenay liggéey fay du baay bi ci barahama Kossy TV am ngeen jarama yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey fay du baay bi ci barahama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV